waay fii xal ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi ban mooy sa meilleur combat saison daaw combat bi la dàqal si saison daaw nga toog seetaan cons ko xam ne lii seetaan nga combat bu neex waaw combat bi nga xam ne moom moo ma gën a neex daaw muy nekk euh, combat kii waaye kuma adresse kii waaye mooy a dee booy boobu noonu. fan la dëkk Pikine wala. booy fii la dëkk. booy bi dëkk kii. booy bi est-ce que maraab yóbbul ko. non yóbbu ko de euh, ah, neex na ma ko waaw. mu dàqal ma mooy <coughs> Albouri ndaanaan la te da nga tolluwut bëre te xool xam ne nit daane na fi nun mbër quoi hmm. mais comme Sakom ni mu ñëwee éteindre ko. jàpp ko bëre la ko quoi te daa ko daan ci bëre waaw moo tax mu nekk combat bu ma neex quoi te xëy ñu bëri foogun woon loolu ne Saka Baldé dina ko def Albouri quoi waaw loolu daf ma daf ma loxo d'accord naa ak yow jeex na kon pour man sax c'est mon meilleur combat ah, Jacob Baldé ak Albouri combat bu neex la ah vraiment ñaari bëri bëri nañu ñu bëri hmm. joxuñu woon foofu dara si Jacob Baldé hmm. lépp dañ ko joxoon ki nga xam ne mooy Albouri mu ñëw ba pare Jacob ñëw bëri fa bëri bu lépp si bëri la ko daal ci bëri la ko daal man nag bon personnellement dogguma la mais man mm. aussi loolu mënu ma impressionné parce que li ma à chaque fois rek tey lutte simple ñun dañ si dem fu ne ci àdduna mm. si si Sénégal tey te ah. mm. Jacob vraiment néew na tey ci mbëru booy temps xam nga genre cinq tonnes yi ci koñ ah. ñi dañuy toog entraîné soldier naa ñu ay mbëru koñ bi ay Jacob gën ah. a Jacob ku xam fi mu dëkk xam moyen yëpp ah bàyyi appartement am bàyyi ay di wàcc si mbapat di wàcc Adrien di wàcc gaal gi di wàcc ndangaan sàmb di ko finaalu kooku da nga xam ne làmb jaral na ko bëgg na làmb te affaire souvent aussi mbir foog mu jaral la maanaam foog mu jaral la yéen coono yi nga mën ko si daj pour mën si réussir mais nag gars yi dañu bëgg a dugg si làmb tey mel ni 5 tonnes bëri 5 combat nekk VIP loolu mënta ne ah. Ah, nekk courtier léegi gars di la woo nga leen di placé seen ñu lay fay beneen question laa bëgg xam da nga am soxna naa soxna waaw hmm. ah, bi ma lépp nag bi ma bàyyi lamb laa ko am lamb kay toroxal na ma def amu ci dara yi nga yi la limal lamb laa ba nga takkee soxna yàggul. non bari yàggul. Hmm. yàggul sa soxna foo ko xamee. Hmm. ma ñaanal jabar ba ba ma nekkee ci lamb dëgg sama yaay ma wuyee jabar fu mu dugg dañu kii doo am jom ndax du yor jabar ngir booba rythme lamb ma topp yi dof dof xam daal. nga dem ay boîte de nuit soirée dansante waxal beneen laa ma sa def te caat sekk mu fa invité woon mhm. maa ngi jigul si wax waaye ba ma demee jour boobu noonu maa ngi ñëw tëdd mais bi ma ñëwee mhm. suñ kër la sama arakonda bi jógee ba géej ngir li ma fa gis gis saa ji ñi sol loo xamante ni sa waay xaw da ngay feebar quoi ah, danga daal mooy la serpent bi alxuraan kër yi di nekk sama xel travaillé ko ba doo comprendre quoi mhm. comprendre nga waaw loolu daal li nga wax kay caméra dina daanu <laughs> li nga ëpp sax wala loolu moom moo tax doo xoo gaale secteur bi daanu ah. yàlla xam caat sekk woon xam nga mu ngi ah. nekkoon bi nekk euh, Padois ah. kii bi la bi nekk Padois mhm. boîte bi ñu dañuy tëgg soir tam nekk Padois rek tur man di kii trop tropique ah waaw tropique mais bi ma ñëwee non bul àggale bi ngay nekk yooyu moom musuma ko def wax dëgg yàlla yooyu musuma ko def musuma tux cigarette musuma gens. musoo yooyu musuma ko def mus. <laughs> yow sama noon nga da ngay ñëw di attaqué rek ah, xam nga loolu amut yow moom da ñëw pour attaqué waaye ah, eh. mm. man du tooñ. question rey yu bari si dëkk bi selon toi moo ko andi. dafa dafa ñaaw. Mm-hmm. te xam nga àdduna dafa tool foo xam ne àdduna dara jërul jërul forcé dara jërul yàkkamte comprendre te dafa am loo xamante ni nit da nga koo war a da nga koo bàyyi xel bàyyi xel mooy deelu am la yow i Kane dee xam nga yàlla dañ ne dafa njëkk bind de doog a bind dund waaw te aaya bi gars yi dañ koy jàngal da ngay dégg sax ku jàngu léegi naan kullu nafsin saa yi xatin te aaya bi yemul foofu. xam nga waaw kullu nafsin saa yi xatin mawti suma ilayna turjauna loolu dafa mat a bàyyi xel quoi comprendre mais dafa dafa dafa dafa dafa dafa métti am 5 tonnes xama commencé jékku àdduna yaayam yaakaar ko xama yaayam sonn daj ay coono liggéey kër yi kër baayam xama doon yeewu di da lu ne ngir ngir ay bu màggee satisfaire ko pour mu dund bànneex xama 5 tonnes commencé nga jàpp am 5 tonnes rey pare xama du mat un mois ñu génn waat wala deux mois jeex xama yaay 5 tonnes dellu di suuf di xaraat loolu ba amaat beneen jafe-jafe daa am loo boo ko defee société nga yàqal mooy tey boo rayee 5 tonnes rek société nga ma yàq ndax sama dama am ay raq am yaay am lépp kon tey nañu defar suñu xel yi fi mu njëkkee mooy ci parents la war a doon mooy parents xam nekk ko woo di conseil di waxtaan di ko indiwaat xam la def du yoon nangam ak nangam mu mën a ñëwaat ndax ah, abo billaa wala affaire bantisme amul njëriñ xam amul njëriñ yow daanaka boo defee sëñ bi doo mën a bokk si nit ñi doo mën a def dara kon man pour man amul njëriñ quoi mhm. yàlla moo fi nekk man daal su maa ngi conseil ñëpp waaye affaire réew mi tàng miti na mais gars yi nañ dawalaat xel yi dawalaat bu baax a baax a baax a baax a baax quoi. kon bi trop sur jour bi ma ko yëgee sama yaram tàng na am naa lu mu miti ndax xamoon naa ko du ma la fen dama ko xamoon. dañoo bokk ah. waaw oui nekkoon boo gisee bëñ yi ngay njëkk a gis xam nga yor bongo bi gars yi toog muy way nekk ku baax ah. wallaay la nga taman benn maa ngi fàttaliku moom am ma doon ko jotul daf may jël ba mu am ab vocal boo xam dama ko am benn affaire bu ñu programmé nga xam ne kon ku am jot nit ñi la quoi waaw di ko ñaanal daal xam nga nabu it sama xarit la du ma la fen ñoo doon nekkoon Botara Sall Botara waaw nabu sama xarit la sama xarit a ñoo doon mhm. ma koy tooñ naa ko dama lay takk affaire yi di ko tooñ waaw di ko tooñ quoi di ko wax loolu quoi di ko xam nga ngir moolaa gi mool bu ñuy sol ci saal beeg yooyu mhm. affaire yi fees xam nga loolu moo taxoon ma amoon xemem ci moom waaw waaye daal war nga wax waxu kii waaye xama saaru yooyu ma leen takk ndax ñooñu ay nit public la nit ñi xam nañ leen du ma takk yooyu mais dama ko doon kafe yooyu moom yooyu daal xam na mais dama ne comme dafa dafa doy waar ba nga xam ne réew mi léegi nañu nañu dalal xel yi jàppalante te te dafa ñaaw rey dafa ñaaw quoi waaye te xam nga lu ñu war def ibakan dañu war def ku rey ñu rey la loolu bu ñu ko defoon benn wala ñaar média bi jël ko walaay xasum dootu digg rey ah donc Boucar lii lañ leen andiloon tey si matinal de sport numéro 160 accueillir fi le grand champion ah 5 tonnes 5 tonnes am contentement bu mag a mag mu nekk mbër moo xam ne vraiment buy neexal. Euh, waaw ah, da ngay grand champion bul dagg affaire bi non waaw voilà. du ma sous-estimé waaw bu ma sous-estimé bu nag. donc ko bàyyi xel. gars yi jox avance bëgg na nag bëre ñun bëgg nañu ñu ngi bëgg sa combat. Ah, waaw yi damay wax rek moo gën de. <laughs> lan ngay tàggatoo moom frère. waaw am nañu contentement bu baax maa leen maa leen gën a ndax. non dama teraanga yi bari na. non maa leen gën a bég ndax mooy Lutte TV moom vraiment xama ku nekk si milieu làmb da ngay sawar pour toog ak ñoom ndax ci ci ci ci ci liggéey bi ci liggéey bi quoi te vraiment ay jàmbaar lañ te da gis nañu liggéey boo xam liggéey boo xam ante concurrence mooy ante concurrence mooy ñoom la ñu def rek la def quoi moo tax man dama koy chiffre te comprendre dama leen naw te bi dama leen a fonk wallaay lancim ndax euh, gis naa ay pas yu bari te man dama mooy làmb am na fu coow làmb tool Lutte TV da ci am part de responsabilité xam bu njëkk da nga na 2S mooy làmb mais guduñ toll waaw ndax ndax li tax mooy làmb mooy da gis événement yi ñi ni ñu koy doxalee waaw ak liggéey bi jaar yoon comprendre na da nga mën a kii surtout seen plateau yi da gis même nit lu muy déborder déborder suñ ko invité dañ koy canaliser te loolu dafa am importance ndax da nga xam ne kilifa ngi leen seetaan te loolu dafa am importance ci liggéey waaw di leen ñaanal jàmm di leen jaajëfal di leen wax coono bi tamit di déplacement bi maa ngi si jégalu bu baax a baax a a mm, non loolu bokkul non dafa am solo te yéen musuma seet interview boo xam ne xam ne kii day classe quoi wala dafa day wut concurrence mais du ngeen def loolu da ngeen def seen voie normale li ngeen war a def rek ngeen def xam nga. am na ñu la jàppale doo leen remercier. waaw di jàppale baax a baax di sant ko ci mel ni jéey seen xam nga mm. nekk nit ku baax xam nga nekk géejawaay boo xamante ne yenn saa ay coow day am daf may woo xam nga di ma calmer di waxtaan ak man bu baax a baax moom jéey xam nga di ko di ko jaajëfal bu baax nekk koo xamante ni xam nga gars yi na jël ci moom exemple te lépp solo mooy bawol bawol la te da koo da koo da koo ferte bu ko neexoon xam géejawaay lu fi nit am am na ko xam nga mënoon na nekk géejawaay naan man géejawaay laa dëkk mais da waaw jiyee daal ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal xama te gis nga ni muy jàppale waa làmb xama vraiment te du xama tey ñi war a wax ñoo dul wax rek mais jiyee xëy na bu si ñiy wax ñiy wax ñëpp dañuy noppi waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax ci teraanga yi jiyee yàlla na ko yàlla defal jàmm ay waay féexal sab xol ah original neexal bu te am na gu original 100 pour cent pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam na nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi